بسم الله الرحمن الرحيم روى الإمام أبو داود إمام أبو داود السنن المصرونة أنا حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة دوم سعيد نتلنين حدثنا الليث ليث نتلنين عن ابن عجلان جليتي بن عجلان عن سعيد المقبوري جليتي سعيد المقبوري عن أبي هريرة مجليتي أبو هريرة يأنا يعني يالا قرم لين يوم يب عن رسول الله جليتي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال مني من قعد ما قعد كتب أب توقعي boo xam ne lam yazkurillaha tuddul yàlla fii ca toogaay boobe kaanat dina nekk alay ci moom tiratan di ak perte tiratan di ak rëccu tiratan di ak xañ minallahi ku tukkee ci yàlla wa man ku tëdd na ma jaan tëraay boo xam ne laa yadkurullaha du tudd yàlla fii ca taraay boobe kaana dana nekk alayhi ci moom tiratan di pertama min allahi gu tukkee ci yàlla yal nañu yàlla dimbale fu ñu toog mu nekk jotaay yu tudd yàlla fu ñu tëdd muy taraayu tudd yàlla jaam tudd yàlla rekk moo ko mën a dundal ndax xol bi ci moom néegub yàlla te yàlla du bokk ak néegam kenn te tudd yàlla ci làmmiñ daan ci cëram ba tàbbi ci xolam yonentu sallallahu alayhi wa sallam dawa ndee Aysatu dana wax ne daf daa tudd yàlla ci waxtu doo ko gis mukk loolu mu ngi tudd yàlla yàlla ñu yàlla boole ci way tudd yi tam jëriñ ñu allahuma barik lana fi rajab wa shaabana wa ballighna ramadan علينا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم